loolu weesoo dëkk bi am na lu fi xew sur le plan politique muy cas Sweet Beauté dafa nekk lu nga xamante ni depuis deux ans mu ngi nekk ci plan économique di freiner plan économique bi nekk ci sur le plan politique lu nga xamante ni warul nekk lu nga xamante ni dañ ko ci war a jiital parce que ñaar yu bokkul la te nag loolu bi mu amee ba léegi deux ans ñu toogaat ba tey ñu réchauffé waat ko kon war nañ xam ne am na lu ko waral parce que ñu ngi nekk ci ay échéances politiques yu nga xamante ni amaana loolu moo tax mais nag tey SND cadre ñi nga xamante ni dañoo bokk ci kuréel bi nga xamante ni Déthié Fall moo ko jiite muy PRP ñun ñoo toog tey jii di soutenir di jàppale suñu mbokk sénégalais d'abord avant politicien muy kan le président Ousmane Sonko gannaaw bi Déthié waxee ni mu ko jàppalee ci kóllëre gu ñu bokk ci fraternité boo xamante ni sekk nañ ko ak ci langue politique bi ñu sekk ak entre sénégalais ak sénégalais ñu koy jàppale ci nan parce que dañu remarqué dara depuis un bon moment yaakaar naa dañ ni y a jamais deux sans trois deux yi mooy kan Karim Wade bi Karim Wade pare kan moo ci toppoon xalifa bi xalifa pare ñi ngi jéemal kii nga xamante ni mooy président Ousmane Sonko depuis deux ans léegi nag kon su yëf fi ñëwaatee ah dafa am lu nga xamante ne mi ngi bëgg a nax saay suñu dëkk muy kan laa démocratie kon ñun suñuy jàppale jàppal ñu en tant que politicien mais dañ njëkk jàpp en tant que jàpp pour suñu démocratie sénégalais bañu yàqu te yaakaar naa lii raam ci jàng ba la jëm te su fa amee kër dootu fa jóge moo tax ñuy jàppale Ousmane Sonko ci li nga xamante ni ñun ñëpp xam nañ ni dafa nekk lu nga xamante ni dañ ko bëgg a politiquement parce que adversaire la léegi nag yaakaar naa loolu suñ ciy jàpp dañ ñëpp jàpp pour Sénégal pour la démocratie du Sénégal looloo tax ñun ñëpp ñuy xeex pour loolu looloo jiite looloo ko waral te looloo soubassement bi su politique weesoo bi loolu yëpp weesoo ñu jàpp ci loolu xam ne loolu yëpp am na ñun cadre yi ñun ñëpp ñu ngi ciy jàpp di jàppale di ko jàppale parce que nag doo toog rek ni man du man yegg seegul ci man xeex bi du man yegg seegul ci man loolu mooy dangay jàpp ni la malheur c'est ça n'arrive qu'aux autres te nag soo toogee ni du yegsi ci man li naan atte attu moo ko gën léegi nag suñuy artu mooy ñuy waxaat pour que ñi nga xamante ni ñoo ñu jiite te depuis deux ans ñi ngi ci loolu ñi ngi ciy wax ñi ngi ciy dellu si nañu xoolaat seen bopp te xam ne nag lu nga xamante ni war te mën a wéy te lu dul dëgg du yàgg te ay fen du bejjaaw Sénégalais ñëpp xam nañu soubassement loolu politique moo ko lal comme te nag politique moo ko lal na ku nekk dellusiwaat sa xel ñu bàyyi langue politique bi ku nekk dem ci te ku ci nekk soo ci demee na nga cay demee yaa xam nan ngay def ba convaincre le peuple sénégalais léegi nag loolu moo xamante ni moo waral tey suñu toogaay mais su loolu weesoo dañ ci profiter di wax li nga xamante ni moom moo xew ci dëkk bi depuis deux ans li xew ci dëkk bi mooy lan ku bokkul ci man doo bokk ku bokkul ci man doo bokk boobu nag dafa am foo xam ne dañu fayam foog ñu ni mu yam fi ndax depuis deux ans même problème bi di ñëw depuis deux ans même problème bi di ñëw kon nag suñuy wax dañuy wax ak sénégalais yi ñu dégguñu ak seen xel parce que léegi li ñu daan wax ku jàngul am nga doom bu jàng soo amul doom bu jàng am nga sët bu la mën a waxal li xew ci dëkk bi moo tax dara mënatu fee réer su loolu weesoo ñi ngi dellu si fi nga xamante ni dëkk bi dafa am lu ko lan muy ay charte charte yooyu lan la dañu am constitution boo xamante ni daf ni Sénégal dañ koy defar pour sénégalais yi ak sénégalais yi mais nag depuis loolu dañ seetlu Sénégal dafa am ku ko téye muy kan la président Macky Sall ni daf ko bëgg a def pour moom pour Macky ak at Macky Sall te loolu mënta nekk ndax parce que benn lam du yëngatu dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk te lu ñëpp bokk dañ koy pencoo looloo waral ñuy artu looloo waral ñuy wax su loolu weesoo dafa am lu nga xamante ne chaque jour day am muy au niveau du Sénégal du ñu manière général au niveau de l'Afrique Afrique à chaque fois dañuy seet ki nga xamante ne rek war nañoo mën a jiite bañ am ci espoir espoir boobu heure bu ñu amee day brisé wu lan moo tax muy brisé wu parce que c'est nous le peuple qui laissons faire ñun ñooy seetaan parce que nit ku nekk yaakaar nga am te yaakaar naa yaakaar boobu la amoon ba gis ko ci Macky Sall ba dugg ci te yaakaar boobu à chaque fois dafay brisé wu sànq Sall wax na ko Thomas Sankara histoire bi ñu bari fekke wuñ ko mais léegi suñu nettali ku nekk di nga xamante ni loo xamante ni na mën a nekk kon dafa war a nekk leçon boo xamante ni ñun dañ ci war a xool lu mu mbaam même chose fii suñu dëkk kan Dia at kan Senghor kon nag suñu toogee ba loolu répété war l'histoire se répète avec kan Macky Sall Sonko dañu toog ba koy regretter te nag nit ki yaakaar naa li nga xamante ni sa njëriñ la danga koy xeex li ngay xeex mooy lan ak sa xel xel mooy lan di nangu di xool lan moo mën a nekk at lan moo mënta nekk parce que yoon ñëpp moo ko xam ak lan moo war a mën a ne ak lan moo warta mën a ne loolu lañ naan junj doy na borom xel loolu bi président wu euh, suñu président muy Déthié Fall li nga xamante ni lépp def na ko muy parcours am que ce soit sur le plan politique d'éthique d'une manière générale sax laa parce que mooy moral ci la ko ñu bëri nawee ci la ñu bëri nawee ci éthique bi mu am bi nga xamante ni yàlla may na ko ko loolu may suñ borom la mais ci kaw moom mu doxe ko parce que suñu borom yàlla mën na laa cërale lu nga xamante ne mën na nekk loo xamante ne mën nga ci jëriñ jariñ ci askan wi mais doo ko doxee mais moom nag yàlla dafa def mu koy doxee muy cëram mu nangu ko ba pare di ko wane kon du àndee ànd bu sincère muy coalition yeewi askan bi mu nekk yéen ñëpp gis ngeen li mu ci def ci li ñu génn kon du taxawee tey dafa bëgg a jàppale Sonko en tant que patriote en tant que homme engagé en tant que quelqu'un qui défend la démocratie kon yéen ñëpp war ngeen nangu c'est un c'est une question de morale boo xamante ne moom moo tax engagement boobu am et en ce aussi que le SND cadre ñëw di ko soutenir ne ko ñëw di ko soutenir kon suñu mbokk sénégalais yi ñu ngi leen bëgg di wax ni ñun at Sonko muy ñun ak Sonko dañu ko wax ni te di ko wax ñëpp di ko dégg dañ koy jàppale te dafa nekk koo xamante ni dafay bokk pour 2024 parce que dafa war bokk ki warul bokk xam na boppam mais Sonko dafay bokk pour vingt 2024